Thank you. mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti point comme chaque fois nag xam ngeen ni limametti la leen di toppal li leen di a jamono ji nag korité bi nit ñi di ko waajal li ci des sax taxatu ko bari xam ngeen ni ñu ngi leen di defal li ni moom mooy tendance korité xoolal leen ñaw yi nga xam ni moom moo gën a tendance maanaam moom moo gën a xew jamono ji tey nag ñu ñëw seet si ki nga xam ni moom mooy Anta la Tigresse Anta la Tigresse nag mi ngi def liggéey bu am solo ci li nga xam ni moom mooy wàllum a tey moom lañ ñëwoon seet si ngir Ah, mom moy ay modèle am dañu koy baye d'abord mu daldi di ko mbokk internet yi ah, buñu paré ñu daldi di ci li nga xamni ah, mom moy présentation modèle yi ci sen tendance korité ci bi limametti point com salaamaaleykum mbokki internet yi man la madame Ngom ñu gën ma xam ci Anta La Couture ma fi tay di leen présenter sama tendance mode korité man sama liggéey ci couture bi polyvalente la je veux dire parce que lépp laay def damay ñëwal goor damay ñëwal damay ñëw broderie euh, damay ñëw broderie damay damay ñëw teinture damay def perlage damay def patch damay def aussi ay euh, yu oyof yu xew si temps bi dal. Lepp lo xamni ne rek dafa méngoog euh, jamono rek dama koy def ci création. tendance bi mom actuellement ci ren mom mun basé ne bazin ak brodé la. basin yi ak brodé xale jël nañu basin yi déjà di ko coupe ay deux tons ma ciy def ay taille yu day waar ñuy coupe ay robe yoo xam ne dañuy coupe robe yu def broderie yi def design yooyu génnee naa ko def naa si yu rafet macha allah euh, jël nañ tamit yu oyof yi yi oyof yi tamit jël nañ ko mais loolu oyof yi genre kii tissu yi man samay création lay doon damay jël damay xool li nga xam ne au fait euh, nit da koy xool naan amul valeur je veux wala nga ne ax ah, lii di moom lu ma xawma lu ma koy def mën na la jox ma ko mm. ba ma ko joxee ma def ko loo xam ne valoriser ko ba yow boo ko solee mm. ñëpp dañ naan ah non tissu bi moo nekk nii tissu bi dootul feeñ valeur bi ñëw bi mooy valoriser en fait tissu bi mm. mm-hmm. bon collection bi ma leen bëgg présenter tey Euh, ci euh, spécial tendance qualité bi amna plusieurs façons amna ay brodé amna na ay euh, basin en broderie amna na en teinture amna aussi ay costumes africains pour les hommes en fatio malen ben yon ay affaire yu nice yu oyof amna aussi ay ay ay ay genre tissu yu oyof yoo xam nit ñi dañ ko mën a sol parce que comme actuellement climat bi dafa changer dafa xawa tang nañ ko mën sol en fait ci biir kër yi ci suba ci diko tajé taajee pourquoi pas yu oyof yi avant ngoon gi de ñëw ñuy saaj teinturier Euh, broderie yeeg bazin yeeg brodé yi euh, léegi damay ñëw présenter leen collection bi. Euh, comme ni ma leen ko waxee mbokk internet yi tout à l'heure collection Korité baa ngi nii nee naa leen bazin ak brodé dafa xew donc lii boo ko xoolee mu ngi nekk demi taillement boo xam dañ ko créé patché ko gis nga travail sër def ci garniture. comme sama sama spécialiste man dafa bokk ci patch coton en brodé déjà dafa tàng pour sama maman yi nga xam ne dama leen tàmmal yooyu sama tata yi. robb yaa ngi nii yëx gis ngeen bien travaillé surtout waa Mali donc euh, affaire yaa ngi nii toujours si robb coton yi ci tendance bi la bokk parce que xale yi dañuy bëgg le matin di sol yu oyof voilà gis nga couleur yi yi lañ koy def dafa ko ay musóor yoo xam ne man maa koy créer euh, ku jënd robe dama lay offrir musóor bi comme genre chapeau la xale yi dañ koy xëy def

am na yëpp lépp mënuñu wane lépp en fait mais lépp disponible na ci boutique bi bon ba tey maa ngi leen di présenter euh, les euh, basins en broderie donc boo xoolee grand boubou yi dafa xew euh, moom la ñuy ñaw coupe ko en tunique genre grand boubou def ci robe def ci broderie travaillé ko gis ngeen yëpp am na fii am na ci boutique bi am na yeneen façon am na ay ay ay couleurs lépp daal disponible na ci korité bi te broderie comme ni ma leen koy waxee toujours euh, grand boubou ku bu grand boubou fond boubou yi dafa xew gis nga dañ koy def en broderie defar baat yi moom la ñuy ñëw nii gis ngeen defar baat yi mu amaale ay robe bu jiital à l'intérieur am ci biir en tout cas li fi nekk ci ay produit lépp mënuñu ko présenter mënuñu ko wone donc dañ leen di wax juste rek euh, ku ci bëgg na ñëw fii ci euh, Scat Urbam rond-point HLM Grand Yoff ci mairie bi euh, boo ñëwee en face boulangerie Marimar di nga fi di nga gis boutique Antala Tigre Couture boo egsee madame Ngom dina la recevoir dina la defal prix bu abordable aussi di nga di nga satisfaite waaw maa ngi woo ñëpp nag ci korité voilà mbokk internet yi euh, li laa leen fi indiloon tey ci sama tendance spéciale mode korité ak kan Anta Latyr Grece Couture j'espère que neex na leen modèle yi nag euh, lii boo leen xoolee euh, benn partie rek la modèle yi ñu ngi ci atelier bi am na yu disponible yeneen yoo xam ne kenn wanewu ko donc ku ko bëgg rek da ngay ñëw fi nga xam ni mooy Scat Urbam HLM Grand Yoff euh, ci rond point mairie bi jakarlo boulangerie Marimar Boulogne, doon ñëwee di nga fa fekk Anta di ngeen gis boutique Anta la Tigresse madame Ngom dina leen accueillir euh, inshallah, kuma ku bëgg 77 00 77 728 99 59 00 728 99 59. maa ngi sant bu baax euh, sama papa sama sëriñ muy sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq a gërëm di sant soxna May sama jumelle di sant waa kër gi yëpp su ma limee juum maam jaara maa faam xaadim yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant yaay Mbacke ñëpp sant naa leen gërëm naa leen may euh, remercier samay cliente particulièrement ñëpp koo xam ne euh, waa diaspora bi mënuma leen fay surtout waa Mali wa États-Unis mënuma len fay ñom ñep ma ngi len di remercier di remercier sama tailleur euh, di remercier aussi sama sama sama sama wajur ah plus particulièrement di si gërëm sama jëkkeur mom mi nga xamni mom may opportunité mom mëna a liggéey euh, tok c'est pas évident donc ma ngi sante di sante di gërëm ñep kep ko xamni rek xamé nga ma sék naa ak yow jamm ak salam ak teraanga ma ngi lay gërëm di la sant jëf Thank you.